pour mën a toog seen dëkk pour war fi mën a teg. voilà maire bu Morolan mi ngi réagir nee na peut-être solution bokk na ci gën a dooleel agro business bi nga xam ne

projet boo xam ne Agri Jeunes nañ ko tuddee 50 milliards de francs nañ fa ne moom nañ fay prévoir justement pour susciter tay xalé mëna mën a am euh, cofeel ak bëgg-bëgg di mëna dem di bay pour war fa mëna a effectivement tay loolu mom moy indi bu xalé yi ci wàllum mbay mi ñi nga xamné ño ñoo nekk ca dëkk ba tamit nekk ci euh, euh, mbayum survie bi nga xamné mom moom la ñuy nekk tey mën nañ leen transformer de telle sorte que dinañ mën a dugg ci walum agro business bi di ci gëna gis seen bopp léegi ñuy bay 3 mois wara mëna bay ay douze mois sur douze et puis gën a gis seen bopp euh, ci ne du ñu nekkati ci ay période de soudure du mën a amati ay jafe-jafe yoo xam ne xale yi dañuy xalaat exode rural bay mën a xalaat sax li nga xam te ne nii man dama koy tuddee exode international mu di màngaan gi ñu waxtaanee wàllu politique Mamadou Sy Albert dafa jàpp ne gannaaw président Macky Sall euh, ci présidentielle yi kon nag opposition ba nga xam ne ñoo ŋàbboon combat boobee faw ñu xoolaat seen qui euh, ci ay euh, euh, candidat yaakaar naa ne kon solution bi lu ko rek ñoom maanaam nañ Fofana ay Mamadou Albert analyste politique opposition bi ci dogal ba nga président Macky Sall jël ci euh, non en troisième mandat lañ doon woote Fum mu ni nak ñom ñoom seen biir faaw ñu waxtaanaat xoolaat leneen li ñu tek ci loxo askan ah oui c'est sûr parce que wàllum troisième mandat monde c'est c'est c'est derrière nous. maintenant ku ci nekk il faut nga am lo proposer askan bi xam nga maa la koy wax ne la euh, dañoo il faudrait que homme politique yi surtout ñu nek ci langum politique bi jamono ji xam justement ban. xeetu Sénégal nañu am. Mm-hmm. xam mentalité bi nga xam ne moom la population yi am. parce que loolu boo ko tenirul en compte mën ko intégrer par rapport ak ci li nga xam ne moom mooy sa projet de société da ngay juum parce que askan wi nekkatul askan woo xam te ne nii comme ni ñu leen daan def def leen bétail électoral ndax leen ñëw ñu voté ñu pare dem non ay population nañ yoo xam te nii dañoo yeewu ay population nañ yoo xam ne nii dañoo dañoo dañuy bàyyi xel ci lu bëree bëri ay population yoo xam te ne nii seen i bëgg-bëgg dañ ko xam te xam fan nan la ñuy def pour mu mën a saafara mais ay population nañ yoo xam te ne nii tey bépp homme politique bu mu mënti doon jàppal ne ay population yu exigeante nañ exigeante mooy lan mooy ñi nga xam ne dañuy taxaw ci ne seen i jafe-jafe da nga koy indi da nga ciy indi saafara mm-hmm. faj ko mënuloo ko ñu dindi la uti keneen et donc loolu bu demee ba am day tax na ne tu tey suñu homme politique yi ci seen bopp ñu war a mën a gën a reconsidérer nañ doon defee politique ak nañu jàppee ne ne tey boo yoree réew noonu nga ko war a mën a doxalee tey jii nii population yi am na ci yu bëri yoo xam te ne nii dootuñu ko baal képp ku mu mënti doon di leen jiite da ngay wéy ca la leen neex di doxal mbir yi ci yoon nekk koo xam te ne kii véritablement exemple ngay doon ci li nga xam ne moom moom mooy bëgg-bëgg askan wi ñu mën a ànd ak yow mënoo ko duñ ci nekk sax di xaarandeeg ñoom seen dañ lay forcer pour nga mën di répondre à leurs exigences et loolu bu amee donc tey euh, euh, opposition bi ku ci nekk war na travailler ci un projet de société boo xam te ne nii day répondre justement aux aspirations des populations war nañu travailler ci ay discours war nañu travailler ci tey ji nii ban vision nañ am ci bu Sénégal gaal gii nga xam ne fii nañu toll ak fan nañ ko bëgg a yóbbu kooku nag dafa laaj pour nga mën a teg loolu ci loxo askan wi bu ko defee ci ñoom ñu mën a xam ci kan nañu war a mën a miser wu wala ci kan nañu war a mën a am yaakaar pour mu mën a yor réew mi donc loolu mooy indi ku ci nekk ku ne il faut nga replier waat sa bopp ak reconfiguration bi nga xam ne day am day gën a ubbeeg notamment avec d'autres ténors de la politique ñoo xam ne ñu ñu ràññeet la xam leen la et puis ñoo xam te ne nii dañoo am appareil au niveau national parce que le maillage du territoire aussi il est important donc en fonction de ça ñoom it ku ci nekk par rapport ak objectif bi nga am ak li nga xam ne moom mooy sa bëgg-bëgg nga mën a réajuster wu pour mën a jàkkaarloog askan wi mën a teg seen loxo lu la ñu turee mu di bokk ci présidentielle bi ñu dëgmal benn bokk yaakaar faw ñu wut keneen nag euh, soit dañuy tànn koo xam ne ñëpp dañ siy déggoo rek ñu dem wala lu ko mooy nag parti bi tas en tout cas euh, wala sax coalition bi daal di tas ku nekk rek bersa daara xeltu la bu ñu yunu Younoussa Baldé defal. décision pour président Macky Sall jël ni du participer ci élection présidentielle bu atum 2024 dina indi ñexetal ci coalition Benno Bokk Yaakaar xëccoo bi dina metti lool ci coalition Boboulé. laaj bi sampukaay moo di ne kan mo nara a président Macky Sall mu di laaj bu samp ci kanamu askan wi monté de Benno Bokk Yaakaar ñakul ko xamné ne président Macky Sall Amadou Ba premier ministre Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social et environnemental Ali Ngouille Ndiaye ministre agriculture Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkoon fi premier ministre ak ite ñeneen Benno Bokk Yaakaar am na ay góor ak ite ay jigéen yoo xam ne am nañu capacité ngir nekk candidat ci élection bi di ñëw waaye beneen laaj bi moo di ne ndax daañu déggoo ci kaddu bu ñu xoolee diggante Amadou Ba premier ministre ak Abdoulaye Daouda Diallo daanaka neexoo bi demeewul noonu waaye ginnaaw président Macky Sall tamal nañu ay surprise ñàkkul ni préparé na déjà ku nar a nekk moo di ne faw ñu def lu gaaw ndaxte lu des fii ba ci élection présidentielle bi de daanaka juróom-ñetti weer dong la. mu ngoog xëccoo bi en dana tar lool ci di benn bokk yaakaar Amadou Ba Abdoulaye du Diallo dèjà nee nañu euh, du ñu jaaroo taal Moustapha Ba mi ngi ciy tudd nee nañu amul base euh, fu mu nekk ni biir benn bokk yaakaar. trouver candidat bu nga xam ne ni ñëpp daañu ci ànd dana jafe. waaw euh, Aly Ngouille Ndiaye intégré ko. maam mi ngi ci moom it potentiel candidat euh, bu mairie mais ñëw voilà très bien de ñi ngi wax ne ne euh, demoon na Touba sax pour sàkku ji ñaan également pour war a mën a samp ndëndëm biir bien sur coalition benn Bokk Yaakaar Amadou Matar Cissé également c'est des présidentiables am na ci ñu bëri ñoo xam te ne nii véritablement mën nañ mën nañ mën nañ nekk président mais xam nga le profil. ci ki nga xam te ne kii moom moo war a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar dafa nekk profil boo xam te ne ni bu am solo lay doon benn profil bi mooy il faut faudrait que kooku mu mën a dajale nit ñi autour de sa personne parce que loolu mooy critère bu njëkk bi ki nga xam ne ne muy ci base bi muy ci responsable yi muy ci ku mu mënti doon au moins am nga je ne dirais pas l'unanimité, mais mange revenir réunir nit autour de votre personne Lolo Ben, la benen bi moi nga am vécu bu lay mën may tey nga manager les zones yi nga xam ñom ñoo nek fofu parce que attention incarner leadership ak nek leader ça fait deux et tay da fay déterminant ci choix bi nga xam te ne day am au sein de Benno bok Yaakaar les rapport yi nga am entre yow ak les alliés de benn Bokk Yaakaar euh, taxawaay bi nga xam ne am nga ko sa jaar-jaar tey jii nii boo nekkee président de la république wara a am xemmemteef pour nek président de la république mais jàppal ne ci wàllum économie ak ci wàllum ni xam te ni noonu nañu wara teugue économie wu Sénégal mais il faut nga am ci ay notion il faut nga am ci xam-xam tay yan rapport nga am ak li nga xam te ne nii moom les institutions du du Breton de de Breton Woods moy ni nga xam te ne nii ñoom ñoo ñuy dimbali ci wàllum koppar au niveau de l'international yan rapport nga am ak yeneen dëkk dëkkaan yi yan rapport nga am am justement ak yeneen euh, euh, yi nga xam te ne nii di ñu ngi leen ràññeele te xam leen ràññeele leen te ñu taxaw ci wàllum international muy euh, corps diplomatique bi muy institution yi nga xam ne moom moo fi nekk ONU OUA ak yeneen yi nga xam te ne nii ñu ngi fi nekk donc c'est pour dire que le profil bi nga xam te ne nii moom mooy am tey jii nii ci au sein de Benno Bokk Yaakaar dina nekk également sur le plan économique ki nga xam te ne kii peut-être am na ay opportunité wala am na ay idées yuy mën a tax tey bu ñu ko falee mu nekk sax président de la république dinañu mën a génne ci problème ak jafe-jafe yi nga xam te ni ñu ngi koy dund te mu jëm surtout ci wàllum économie donc loolu yëpp dafa nekk naturellement loo xam te ne nii il faut nga mën ko dajale pour mën ci génn maintenant kan moo ko ci mën a am kan moo ko ci am ci ñoom je crois jarut ma ciy jaar ñu ci bëri xam nañ ki nga xam te ne kii wala ñi nga xam ne ne véritablement am nañ sa profil pour mën a wuutu président Macky Sall. didn't get out.